waa xam ngeen lii dafa neex lii ngeen ma defal nii bu ngeen xamoon sama xol bi nu mu seddee maa ngi yàlla rek ko ndax lii dama ko gëj a gis depuis bi ñu nekkee Europe laa gëj a gis bii jotaay nii rek lañ ko daan doxalee. salaamaaleykum. maa ngi nii Comment tu vas? duma nuyu kenn dama lekk pour gars yi. léegi la xel la naa leen. ci jàmm. waaye alhamdulilah. Sénégal. Sénégal. Sénégal. fii kenn ku fi nekk boo deful cinq ans jëm kaw. bon mooy loolu quoi. donc ku am xalaat bu rafet. waxoon nañ ko. dañ war a tabax ay mosquée. ah tabax ay hôpital. ak yeneen ak yeneen ak yeneen kenn ku ci ne am nga projet boo naan. ah Ibrahima. ok non je l'avais dit parce que man waxoon naa ko même j'avais vu téléphoné Zeus. Zeus waaw comme maintenant c'est un footballeur international ma ne ko. faut pas faire euh, faut pas faire comme les footballeurs qui sont là quoi ah, franchement. parce que man je préfère que tu fasses comme les footballeurs européens. Ah, loolu wax naa la ko parce que maintenant il y a des africains qui le font. Mm-hmm. les Camerounais quelque part tu vois. Mm-hmm. loolu la quoi il faut il faut nga def sa bopp bi ne un jour viendra da ko war a def benn investigation ci dëkk bi tu vois parce que man man man j'ai essayé parce que case santé bi ma leen doon wax mujj na nekk hôpital parce que bailleurs yi am nañu ma si jàpp. alhamdulilah mais félicitations. ah man damaa bég. ndax xam nga Olof Ndiaye def ni nga woote ñu wuy si woote rek woote. yomb na torop. Mm-hmm. waaye ñu wuy si la mooy jafe. sëñ bi damaa woote ngeen wuy ma. Mm-hmm. xam nga lii dafa neex. waaye may leen nu ma dugg génn. mais añu nga marqué lax torop li nga lax li nga lax di ko ko xali déedéet kay ay ah, maa ngi ci de waaye waa aji la nga lax lu mais man kontaan naa ci couple bi ah, ah mais ah, da koy saxal dañoo jongi da koy saxal waaye waaw wuy leen ma yéen lañ am ñaanal leen bu bu ma dugg ci jotaay bi nag yàlla may ma am am mo rajo torojo il y a problème ah il y a quoi non non attends bu fekkee kii aji. aji bu fekkee yor na ay médicaments peut-être. may ko ah. je transpire là. waaw waaye oh tu non mën na doon grippe ah. waaw mën na nekk grippe moo gaawee gis. non du grippe de affaire oh affaire quoi. affaire la. lan la aji. waaw. toilette toilette toilette waaw. allez-y allez-y allez-y lay wax mooy. waaw li lan la. mati lan la. ah mati. Ah, ah. may ko waaw li lan la nii. aji topp ko ba xam qu'est-ce qu'il y a wax nga ko. aji lan la ñaari nit. non man je suis. Ah. concert affaire centre culturel. lii lan la. my damn ay shit ay ay grand quel soulagement waaw man la xoolal man bu leen ñëw ba fii nag dima indi ay problème ah, man kay moo ma jaaxal waa lan la waa lan la non ma ne am na lu xew eh, am na lu xew xamul lu mu nag mais am na lu xew eh. am ma rajo ca rajo Ibrahima ndax xale bi ba tey bàyyi gàttal. tool bi mën na toll. waaye fi ma toll na nga ko xam. waaw almal almal je t'en prie. kon yéen a tolloo mu bokk. merci beaucoup. Yeah.